ay metti yu tar bund xatal xoñañal ak ñàkk sàmmonteeg ak ak yelleefu doomu aadama nekk kàddu yo ya nga xam ne tukkikat yi jaar libi ñoo ko mànkoo di ko ñaawlu ki si mujj doon ab ndaw sénégalais bu juddoo ca kolda ba mi gàddaay nag mi ngi amoon ci fukki at ak juróom ci ay kàddoom nag wuti koppar rek moo taxoon mu dem ca libi man kolda laa jóge quoi village Kolda reza Kolda mais fi ma ñëw pour ma arroser ma arroser fu ki Basal ba ma am cent mille ma dagg fi tiken ma jëm euh, euh, Mali après Burkina euh, Agadez comme Agadez sama xaalis mo jeex après man foofu la nekk be sama yaay am ma cinquante mille. ma débrouiller fof ma am passe parce que fof diganté Libi ak euh, agades, cent cinquante mille mais comme instant boobu maa ga ma fay soixante quinze mille. diiru at yam def ca Libi nak waji dajna le mbour dajul ca taal ndax ay tolof tolof yu metti la fa jankontel 2013 la dem Libi waaw dama dem fa pour ma uti xaalis quoi mais tant tambum dem Libi xam nga man sama wolof xam nga rek waaw comme dama sonn foofu trop parce que eh, dama nekk foofu prison trois fois. Gadrul Saba Misrata Trablus bi ñu dippee Tripoli tey Zinata dëkk yi ndaw Kolda bi min na leen bu baax jot na fa sax def ay liggéeyu taaba taaba laata ñu ko yóbbu ca kaso. Puramen je fo euh, ci Libye eh, Gatrul laa njëkk eh, kii si ci entrée bi Gatrul laa tudd ma Gatrul nag man yàggul foofu ay deux semaines ma nekk foofu ma jëm Saba quoi Saba tamit ma dem foofu eh, ma ma nekk foofu ay enna ma jëm Trablus Trablus même Misrata def naa ko mais yàggul Misrata a ah, ah, dama ñàkk paas rek parce que ay deux semaines trois semaines rek ma liggéey foofu ay liggéey journée yi ba ma am passe Trablus ma dem Trablus quoi mooy Tripoli voilà foofu nag ma dem ba Zinta Zinta ma géej bi géej bi foofu laa nekk quoi ok comme foofu man yàgg naa foofu parce que dama liggéey foofu ba ma am xaalis ma fay ah, ñoom puus ma pour ma jàll Italie police yi jàpp ma xam nga police bu jàpp ma moom tëj ma kaso ay ay un mois yooyu. ay pexe waa këram rawatina magam moo tax sax ba mu génn kaso waaye yàggul dara mu delluwaat mus naax. après da sama grand moo fay mil mille mille e, dinar ma fay ma foofu après ma ma génn moom moom jox xaalis tuuti. après ma delluwaat Saba comme maa ngi Saba ci liggéey xam nga tolière man tolière nga defar foofu damaa mun tolière nag xam nga après daan benn jour rek boy bi ñë ñëw na rek ci guddi ci garage yi su suñu garage ñu attaqué ma foofu yëpp ñu jàpp ma ñu yóbbu kaso mu ne xaalis moo xaalis boobu mu laaj ma man amoo ko saali bi musuma ko am sax parce que musuma ko. Euh, moom saa mu man te ko am foofu xam nga xaalis bi daa bëri mu ne eh, quatre mille quatre mille yombul ci libi xaalis libi yombul de eh moom day eh, ay deux millions yooyu quatre mille quatre mille yombul de comme dama ne ay trois mois ci prison yi. bis bi mu dul mës a fàtte nag mooy guddi gi ay samba booy songee kaso bi mu nekkoon. ca boobu boobule cong ca lañu ko soxee juróomi bal ci tànk laata muy def ay pexe ngir ñibbisi Jolof ca atum 2018. moom benn jour rek après gars yi ñëw ci guddi 3 heures du matin ñu attaqué kaso yi ñu tiire ñu bari ñu bari dee na foofu man sax ñoom foofu saa demande dama na sax waaw ay sénégalais yooyu ay gambien ñu bari quoi moom daa tiire tiire nii rek ñu jël ay bagages yi ñu jàpp nit. man noonu laa dee comme moom tiir nga ma rek ma ne ma daanu xam nga mais waaw mais cinq balle parce que moom day roosineer tririti xam xam nga cinq balle après daa benn mam moom moo chef foyer bi comme moom ñëw na daa dégg maa ngi yuuku quoi après ñëw jàpp ma foofu ne yóbbu hospital mais dama est hospital mam nee nga day dagg tànkay ma bañ mom man dama nekk foofu ay 5 jours mom ne nga munoko fajj faj day dagg rek man ne nga doko dag ma bañ ok comme sama famille mo ki ko di xaalis be am après ñu envoyé fof ma am xaalis euh, transport ma ñew ba Agadez ba Niger après ki wa OIM mo jël ma foofu jàpp ma ba 2000 le 18 au ma le 18 octobre ma soit fi tay ji nak ay tolof tolof yu mag lay jankontel bis bu ne ndax mi ngi bëgg faju te yorul limu démé demee docteur am liggéey nag wuñu ko ba taxna nak mi ngi talal ñaari loxom ngir ñaan askan bi ay ndimbal depuis ma este après ma jëm ci village yi ma delati village yi comme foofu la nekkoon mëno liggéey ay liggéey am nga mënuma ko sax waa xawma ko sax ci olof liggéey foofu village yi mënuma ko tee est-ce que comprendre ok liggéey village yi mënuma ko comme ma ñëw fii pour ma faj sama tànkay mais awma xaalis fii nag man awma fii mbokk yi mu noon noonu kon depuis ma ñëw fii 7 septembre maa ngi fii dama bëgg a liggéey te aw da benn liggéey mais mënuma ko def ok instant yi nii dëgg yàlla ma dara te sama tànkay mu ngi nii dafa tanewul ba tey te dama bëgg a ñëw jàpp ma pour ñu faj sama tànkay quoi parce que instant yii nii yàlla xam na lu man lu mu nekkee quoi.